duniyaa wari neen barke maam saaliw jirim yee ngi jooy maam saaliw miskin yee ngi jooy sëriñu saaliw ndongo daara yaa ngi jooy maam saaliw moom la nu xam moom la nu miin sëñ saaliw yow la nu miinoon mbàkke nga dem ba ñun fu jëm ku ko xam na maa ko wax sëriñ saaliw la nu mii noon mu dem banu ñun fu nu jëm ku ko xam na maa ko wax adduna naxub neen barke maam saaliw duniyaa wari neen barke maam saaliw jirim yee ngi jooy maam saaliw miskin yee ngi jooy sëriñ saaliw ndongo daara yaa ngi jooy maam saaliw moom lanu xam moom lanu min sëñ saaliw ñun yow lanu xam yow lanu min sëñ saaliw yow lanu miinoon mbàkke nga dem banu ñun fu jëm ku ko xam na maa ko wax sëriñ saaliw lanu miinoon mu dem banu ñun fu nu jëm ku ko xam na ma ko wax ku sopp sëriñ saaliwu ajjanaay këram yàlla njëkk gërëm sëriñ saaliwu ku bëgg sëriñ saaliwu ajjanaay këram moom lanu xam moom lanu min sëñ saaliw cantaakun yaa ngi jooy maam saaliw sangub cheikh bee cocu maam saaliw bul fàtte yàlla del jaamu yàlla te xam ne yàlla léegi mu jël la julli fonk koor azakaak mburum koor ajil màkk soo ko mënee defal ko yàlla bàmmeel ak wee taayam te dee am na wextan ci guddi gu njëkk ci biir bàmmeel yërëm yàlla sa yaram set loolu sëru lëndëm lool rusal ki xool rusal bur yàlla sëriñ saali mooy borom jannatu maxwa sëriñ saali mooy borom jurul borom daara njoora borom ñaari daara yee ca ngaabu borom njoowaan gocoroon xayga borom jurul borom njàppandal borom ndooka borom jamono borom jamono borom jamono borom jamono jamono baysal jooy nañ la jooy foot yuuxu nan bay xalambaay ba tey sax ñi ngi jooy sëriñ saaliw bul fàtte yàlla del jaamu yàlla te xam ne yàlla léegi mu jël fonkal julli fonk koor azekak mburum koor ajil màkk soo ko mënee defal ko yàlla bàmmeel ak wee daayam te dee am na wextaan ci guddi gu njëkk ci biir bàmmeel yërëm nu yàlla sa yaram set loolu sëru ruu lëndëm lool rusal ki lay xool rusal bur yàlla ku jaamul yàlla jàmbu yàlla gërëm moo koy ramm gëm naa ni sëriñ saaliw mooy waayi yàlla ne leen Serigne Saliou mooy waayu yàlla wax leen Serigne Saliou mooy yàlla. ndeysaan Serigne Saliou mooy yàlla. ndeysaan Serigne Saliou mooy yàlla. 28 décembre ci gi aljuma ñi jooyo falaxoo Touba defi mbooloo ñi jooy borom yërmande. doomi bamba jeex na bilaay sëriñ saaliw mooy waay yàlla wallaay mooy waay yàlla maa ngi lay ziar borom euh, ron ga ca xay ga borom looka borom xel kom jaaga ah, borom daara yi njurul kooku mooy sëriñ saaliw 2007 la woon ba 2020 bu ñu ko compté ci bës ba ci at yi nga xamante ku bëgg saboote ay aalu moom teel na bàyyi ma li may seen sa bët neexuma waaw bul ma invité ba pare di ma kii xam nga nañ ko gérer rek ñu émission xam nga xam nga moom ah. euh, même bu fekkee ne xamuloo ah. ci moom da ngay xam mhm. ndax jikko ji mhm. melokaan bi mhm. ni nga xamante ne noonu la meloon dañ doon faral di wax ne Serigne Saliou mooy Serigne Touba dafa leer te ndongo yi nga xamante ne jaar nañ ci loxoom yëpp ku ci nekk tey ci ñoom mm-hmm. saa yu bisu mel ni ñëwee mm-hmm. sa dafay tooy alhamdulilah